si lañ jàppante Samba Sarr n'est pas une personne moo il laisse faire Tout toog ñu bàyyi ñuy salfaañi ay droit am xam na ci ni muy teg bu donc si lay force ni day dugg waa bu ko def ko li mu fay def ba mu piqué fa crise et à cette crise là si la succombé si la dem Dominique le temps ñuy réanimer def li ñu def yëpp c' est président comité exécutif Dominique bi secrétaire exécutif Dominique bi si dafa demee def li ñuy def li ñuy def yëpp si la succombé à cette crise boobu non, qui la décédé le consensus bi war a le 7 août assemblée générale fédération bi nit. la jeunesse de Pikine particulièrement celle de Pikine Ouest et particulièrement celle de dañuy taxaw à bras le corps mené toutes les personnes de justice. pour que li tire clair. il n'est plus question dans ce pays là ñuy avons leur bon vouloir après ñu nous